li tax ñu grève mooy note de service bi jóge douane mu war a tegu ci bépp marchandise bu Sénégal di utiliser muy tissu quincaillerie divers alimentation mercerie commerce général li état note de service bi mu génnee benn askan mënu koo fay ba pare di jaay jaay bi li muy métti métti métti sax xam nañ ni dernier consommateur moom moo ci gën a nar a métti li ndax commerçant bu jëndee du perte day teg bénéfice mais bo dégué bénéfice dañu consommateur li mu nar a jënd moo nar a cher mo waral ñu ñu décréter 3 jours de grève mu don 112 heures. grève bi nak nima ko déggee manam amna solo lol ndax manam euh, dañu wax né commerçant yi dañ leena a lo xamné manam ne maanaam euh, ko fiñ tolni ba nga xamné danaka mëna tuñu dem lol nak man dama koy rafetlu rek ndax xam ngeen commerçant mom du perte. kon danaka xex bi ñu xeex ñoom boo xoolee sax consommateur yi lañ koy gëna xexal ndax commerçant mom bu jënd woon 1000 francs it bu ñëwé da ci teg dara jaay ak lu mu ser seer mais wax nañ né taxi nga xamné mom moom leen eh, douane di teg loolu attanuñ ko te baaxut ci réew mi kon nak duñ mëna def lu rafetlu ko dal tay ni gaay yi li def ni c'est pas normalement quoi rafetul tay ni yow contrat bu ñëk ma 10 millions nga do fay ya bo dem bo dee douane ma nga yok ko ak tax ak taxi té lolu loolu du ñu arrangé ñu ñu ñi wacc conteneur té tay ni bo wacc 40 pieds kenn ku né di nga am lu bari té mën nga journée yépp du am te daanaka continuer lu bëri moo ñuy suñ arrangé te fi mu toll nii comme grand bi di taw nii te tey ni bu continuer ñoogul fii rek du ñu arrangé gaa ñi fi wax ni bu leen gré bu jaay place yi ndaw xamuñu ko te ñooy bu ñuy jënd borom place yi ñuy mën a jaay ci bit ak ñu te daanaka ñun suñu intérêt moo ci nekk sa ñun tey bu continuer wàccagul fi rek du arrangé du baax ci ñun. waa c'est normalement il faut que ñu ànd commerçant yi parce tey bu ñu ànd commerçant yi rek du baax. Euh, importé bi ñuy def nii. dafa métti guddi yi ñu toll nii mu kenn mënutoo jaay ba gañe dara lu ko waral mooy que ne bagage yi moo cher li ko cheral mooy dédouanement bi moo la ñu yokk conteneur boo daa fay ay 4 millions xoolal tey noonu da ngay fay ay 20 millions 22 millions kooku doon koo di tuddee loolu nit mënu ko fay mën nit mënu ko fay mën ci génn beneen bi ci toppaat du métti ci commerçant yu mag yi ci commerçant yu ndaw yi lay métti ak ambulant yi ak ñi nga xam ne ay borom kër lan ca nan bàyyi xel na Macky Sall nu mu dimbalee yaram nu danoo sonn nonu dimbale wàññi dee duwaañ bi nanu dimbale wàññi taxi yi sonn nan tey nan ah xanaa grève bi daal ñun liñ ñu liñ ñu duwaañ teg attanuñ ko mënuñu ci liñ lim nu teg mënuñu koo fayal buñ ko fayalee duñ liggéey ñun liñ doon fey sax dafa metti ci ñun mu bëgg ñuy bëgg koo yokk 100 pour cent loolu de moo ñu tax di gërëm. la xew ci marché bi kenn ubbiwut kenn ubbiwut ñëpp ñëpp kenn ubbiwut place yëpp a ngi nii gis ngeen ko kenn ubbiwut. Unocois ñoom ñun ànd ñoom seen yoon nëw ci ñun ñun ànd ñoo ak Unocois jàppale ñun ñun suñu yoon nëwul ci Unocois Unocois ñun dégluwuñ leen dégagé nañ leen fi bu yàgg amatuñ fi benn baas loolu lañ leen loolu lañ leen xamal Unocois moom amatuñ fi dara. Unocois insisté tut ci dëkk ci réew mi ñoom ñëpp dañ leen a jënd léegi ñu doon ay membre du gouvernement ñoom ñi ñoom mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñoo rek koo ci xaw rek membre du gouvernement la nit nag mënoo bokk ci cere ba noppi di ci xëpp suuf koo xam ne da lekk ci cere ji di ci xëpp suuf moom mënut a nekk moo tax kon ñoom daanaka assisté ba tax na dañoo sos kuréel gu bees ku tudd ACIS toll ak 6 ci ginnaaw te daj na fukki régions yeeg ngeen ñëw ndax ñi de xeex muy anam bi ñu tegoon xam ne conteneur 20 pieds ñu ne temps lay fay 40 pieds temps lay fay bu dee tissu sangam bu dee kenkeer bu dee defeer loolu lañ bëgg mais application valeur yi moom lañ moom lañ mënul. plan xeex bi port xam na ne conteneur yaa nga fa te Dubaï port am na contrat ak Sénégal Maersk aussi contrat la ak Sénégal dèjà seen seen navire bi nekk ci alentour port bi mënut a costé ndax ñàkk am fu tegee bagage am conteneur mënu ko wàccee ndax port bu port bu saturé dèjà loolu xeex la. ñu boole ci trois jours de grève yi Sénégal gépp ma grève générale moo tax xam ne foofu moom moom moom doy na. bu koy gis mu ne fii rek am na ay bagages ci port bi ñii am nañ fi ay deux conteneurs ñii ay trois conteneurs fas ñooy la fas sa xàcc ak morom ja dañuy boycott ñu ñëpp kenn du génn sa benn bagage kenn du benn bagage du gën ci port gi li ci gën a métti nag mooy màggal Touba lañ jëm duna jàpp ne suñu jëmee màggal Touba duna war a wàññil taxi yi wàññil bagage yi fexe bagage yi ñëw kenn ku ne mën cee gis bopp néew dool ci ah, seen bopp mais li ñu def nii buñu jëmee ci màggal dana métti trop si ñun noonu dimbale yërëm ñu génn génn ah, si ñun kenn mënu ci jaay kenn mënu ci génn amul amul ca commerçant man du perte de bu nawet bi may perte parce que ñun suñu génne suñu bagage bu nawet li bu ci continuer ñu génne bagage yi il faut dañ ci tek dara jaay mais kenn du jaay fukk ah, kenn du jënd fukki dërëm di di jaay juróom mu nekk. waaw ah, la ñuy ñaan euh, dañuy ñaan ci lool nak euh, ñom état bi nga xam mo andi mesure yi dal mu teggi ko ndax manam euh, jamono ji sax dafa metti commerçant yi tamit son nañ ba ci ñun ñi nga xam ñoy détaillant yi ndaw yi wax dëgg yalla son nañ trop kon bu leneen ñëwé dalat ci seen kaw lolu ay jafé jafé rek lay andi ci réew mi. kon nag ñu ngi ñaan état moom mu deltu ginnaaw ci mesures yi nga xam ne jël na